mbokku Thiès salaamaaleykum mbokku Sénégal ñuy niwu d'abord ci bu màgg bi nga xam ne journée nationale des pêches artisanales lañ ko tuddee ñuy niwu le représentant du ministre de la Pêche, M. Pape Sanyambay, représenté par son directeur de cabinet à la tête d'une très forte délégation. Monsieur le directeur lay jox sa voulons di ça, Watiwai, bu Niou, Bouba baax Haba. Qui tourne, qui nous y a mi nga xam ne mooy parrain bés bi muy le DG Abdoulaye Dieye de l'AIBD bi nga xamante ne moo ñu yabal ñu ànd wax nañ ko léegi ak le coordonnateur de Siggi na ci Yacine Diagne ànd ak une très forte délégation boo xamante ne nii lim nañ ko léegi waaye ñu yokk ci rek madame Camara Kine Sey yokk ci aussi madame Oumou Kébé bi nga xamante ne ñëw nañu léegi fekk ñu fi ak le responsable des jeunes notre jeune frère Massaer Gueye kon ñu niveau rek ci turu DG Abdoulaye Dièye teg niveau bi nag ci loxo sunu frère le président des mareyeurs de Thiès l'infatigable Habib Diène mi nga xamante ne moom la mareyeurs yi doy loo fii ci Thiès jiital ko te mu mat ko sëkk ndax fu mu taxaw rek ak lu muy dox ak lu muy wax si mareyeurs yi lay dox ci seen doléance lay xëy ci lay gont waxul benn autorité soxla boppam soxla mareyeur yi ak intérêt mareyeur yi ak seen avancement ak liggéey bi ni mu doxee loolu rek lay dox di wax donc sunu frère Habib ñu lay seedeel loolu ci sa biir mbokk niw aussi président national bi jël kàddu léegi rafetlu aussi ay kàddoom niw beral niwo waa Fass Boy ak kilifa gi ñu àndal ndax thème bi ñu wax ko muy immigration clandestine ñuy xeex loolu comme ko son excellence le président Macky Sall santaane parce que Sénégal nag bu ñu loo tuuti kenn newul lépp dox na réew mi am na ay jafe-jafe mu nangu nañ ko waaye ku nekk aussi bu xippee seen bët dina gis ne président Macky Sall suba ngoon guddi bëccëg mi ngi ci soxla askan bi moo tax wax ngeen ko léegi mareyeurs yi mosuñu am financement waaye indil na leen DER mu leen di financé ci taux bu faible na faible dugal na aussi loxoom ci wàllu moteuru gaal yi dugal loxoom ci wàllu gilet yi sànq kanamee ministre moom ko gën mën a wax ak représentant mais xam naa ne bàyyi na xel mareyeurs yi en tout cas mareyeurs yu Thiès yi du ñu ma weddi ndax marché central au poisson bu moderne bi nga xam ne mu ngi ko fi tabax mu dagg ci ñaari milliards ak ñaari téeméeri millions di deux milliards deux cent millions mooy nekk marché bi gën a moderne bi état du Sénégal mos tabax depuis l' indépendance du Sénégal kon nag président Macky Sall bàyyi na leen xel bu baax a baax a baax loolu moo waral seen diggante ak ki nga xamante ne mooy doomu Thiès di Abdoulaye Dieye mi nga xam ne wax nañ ko léegi bu artistes yi xewlee taxaw na mi ngi seen wet bu sportif yi xewlee mi ngi seen wet bu jigéen ñi xewlee seen wet bu jeunesse bi xewlee mi ngi seen wet waaye diggante Abdoulaye Dieye ak les marières de Thiès defe naa ne diggante la boo xam ne bu sori la ñu ànd ci accompagne leen parce que moom ku ko xam-xam ne développement Thiès moo ko ñor développement Sénégal moo ko ñor kuy def entrepreneuriat da lay jàppale waaye rawatina di mu joxantee loxo ak seen président di Habib Diène mi nga xamante ne nii moom ndaw la waaye liggéeykat la borom jom la président Abdoulaye Dièye nag wax nañ ko léegi moom képp koo xamante ne nii njaboot nga ci président Macky Sall bëgg na bu sa bët xongee boo gestoo gis ko ndax wax nañ ko léegi moom dafa taxaw taxawaayu ndey ji seex tan xamlewul dara li mu am def na ko ci kees avant sax AIBD ndax AIBD moom mujjee na ndax 2016 ba nëga ni mu am société am chiffre d'affaires ay milliards waaye waa Thiès kenn ëppalewu ci milliards Abdoulaye Dieye kenn ci milliards ay alalam boolewul dara ak ay wax moo tax bi ñuy ñëwee ne ko dañuy def journée nationale de la pêche artisanale yow lañ ko parrainé mun leen dama koy jël en charge entièrement te yaakaar naa ne président Habib Diène ak ñi mu àndal wax nañ ko jàpp na ci bés bi bu baax a baax comme nu mu yàgg di taxawoo ñuy wax nag ci turam di lancewaat appel ministre bi à travers son directeur de cabinet bi bi premier ministre ñëwee di visiter le chantier bi nga xamante ne mooy marché au poisson DG Abdoulaye Dièye defoon na yi auprès du ministre de la pêche auprès du directeur de l'ANAM wax ko ne bëgg na auto frigo yi ñuy joxe waa Thiès ñu bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax parce que nag moom waxoon na ne maa ngi dégg sànk ku koy wax mais dégg naa ministre bi mu wax devant le premier ministre ne ko amoon du ñu la joxaat dañuy jox ñi nga xam ne amuñu woon te yaakaar naa ne kenn gënu cee yay mareyeur yi Thiès yi kenn gënu cee yay ñoom abi génn ñii mooy profité di niw président Pape Gueye di ko sàggal bu baax a baax a baax en daal lu ñu président Abdoulaye Dieye yónni woon ci ay yóbbante gënoon na rafet lii gënoon na yell lii waaye xam leen ne rek demoon na bay jug kilifa gi woo ko ndax président day soog a ñibbisi soxla ko en urgence woo ko mu daal di dëpp daal ne def leen délégation ngeen dem teewal ma mais xam ngeen ne Abdoulaye Dieye ku yëg waa Thiès la ku yëg mareyeurs yi ku askan bi la kuy liggéey pour le triomphe du président Macky Sall mais kuy liggéey aussi pour le triomphe de notre candidat le premier ministre Amadou Ba le prochain président du Sénégal bu ko yàlla dogalee ndax mareyeurs yëpp dajaloon nañu dajale seeni i parrainage teg ko ci loxo DG Abdoulaye Dièye pour mu jébbal ko le premier ministre Amadou Ba kon ñu ngi leen sant di leen